asalaamaaleykum mbokki internet yi asalaamaaleykum mbokki commune bi ñu ngi fi tey Bandia seet si ku ñu Ismaïla Sène un nouveau candidat pour maa ngi lay dalal bi. maa ngi leen di ci seet si bi bi ngeen ma seet si di leen ne euh, mooy Ismaïla Sène. doomu Bandia Euh, juddoo fii yaroo fi jànge Bandia bi ma paree Bandia laa dem euh, Sébikotane def euh, cours moyen après Sébikotane ci laa dem lycée Lamine Gueye après lycée Lamine géey ci laa dem université faculté des sciences techniques département sciences naturelles ma doog a dem jàngale ji tey ñoo ngi ministère affaire étrangères ci tënk rek Ismaïla seen daal mooy doomu Koursaafi dëkk Bagna dëkk Diass bëgg nekk nag euh, maire fële ca Diass. tey lu tax ñu fii tey dañoo dégg sa tur si euh, élection yi su ma lan moo ko duggal ci politique. waaw euh, wax naa ko sànq sax ci point de presse bi amaana ñu bari dinañ laajte lan moo ko dugal ci politique li ma ci dugal mooy développement Diass dañu gis ne ba ñu juddoo ba léegi. mbir yi doxul te wax dëgg yàlla am nañu yoon boo xam ne buñ ci jaaree incha allah yaakaar nañ ne jas dina dina développé loolu moo tax ñu soobu ci war a bokk nag ci instance de décision bokk ci fu ñuy nosee affaire yi ca fu gën a kaw ci jas soo ko defee ñu mën a suqali suñu dëkk développé ko. waaw ah, bëgg naa aussi lan mooy pour nga suqali dëkk bi. waaw programme bi programme de développement durable la. ci wàllu xëyu ndaw yi xam nga dafa am lu ñu naan compétence transfert ñu nekk au nombre de neuf ay santé éducation affaire assainissement affaire domaine secteur bu ne ñun am nañ ci programme boo xam ne dañ ko teg mu leer par exemple wax naa ko sànq ci wàllu sport bi ni ñu fexe ba xale yi nga xam ne ay talent la ay talent lañ ci biir jas ñu recruter leen def leen ci école de football ñu am ay am ay su ko defee ñu mën leen jaay bitim réew seeni mbokk gis ci seen bopp mairie bi gis ci seen bopp su ko defee mu suqali kii bi ci wàllu xëyu ndaw yi ci femmes yi ñun ñu ngi leen di bëgg a organiser un GIE te GIE boobu ci dañ ci volet transport lañ koy accentuer ndax seetlu nañu ne euh, ligne Dakar Diass amul ci loolu la ñuy accentuer jënd ay bus yoo xam ne ay jigéen ñoo koy moom su ko defee ñu dénk leen. daal da nga bëgg suqali dëkk bi ci secteur yëpp. secteur yëpp. voilà Ismaël Sène jeune nga xale nga. yaa ngi peut être mën na wax yaa ngi door a démarrer sa carrière Ismaël Sène pourquoi pas mënoon bootu ci ginnaaw dirigeant politique yi nekk ci zone commune de Diass bi comme ça ngeen ànd liggéey commune Diass. waaw bootu de yaakaar naa ndaw sax moo war a jiitu mag bokk ci ginnaaw ndax ndaw moo ëpp avenir te ndaw longévité ci wàllum administration bu nekkee ci wàllum liggéey kuy doog a commencé am xam-xam bi am pexe bi am yoon bi yaakaar naa mag ñi dañ ko ko war a nangul bu nekkee loolu ñu ñëw ci ginnaaw ànd liggéey. ci troisième voie boobu laa bëggoon ñëw. waaw troisième voie bi mooy coalition bi nga xam ne professeur Amsatou Sow Sidibé moo ko moo ko dirigé xam nga bi gars yi ñëwee ne man maa war a jiite ci ci man lañu am yaakaar ci la ñu wut récépissé maa ngi sant sax au passage sama cousin Ibrahima Lo bi nga xam ne tey moo indi euh, récépissé boobu ne ma ah ñun

jékki-jékki su may def seen génn rek de nulle part comme ça mais da ngay poser candidat pour jël élec euh, mairie commune de waaw ni ñuy battre campagne moy sax visite de proximité. Mm-hmm. visite de proximité moy manam dañuy dem ci dëkk bu ne suñu programme jël nañ ko ci dëkk bu ne dinañ fa dem kër bu ne ñu dugg fa tok ak borom kër yi waxtaan ak ñoom xamal leen kan moy ismaïl sen xamal leen lan mo tax ñu ñew xamal leen suñu programme fofu dal inshallah man dina ko def. ak sama équipe ñu dugg ci dëkk yëpp 17 village yi nekk jas yi yëpp loolu mooy suñu programme noonu la ñuy campagne suñu suñu noonu la ñuy defee suñu campagne électorale visite de proximité lay doon te incha allah semaine prochaine dinañ ko commencé doobu bi dem ci ren incha allah bi def ko noonu. ba dëkk yëpp jeex bëggoon naa xam tey lan mooy sa sa sa vision sur gestion commune de Diass bi. noo ko gisee moo gisee gestion bi baax na wala baaxul jaar bu baaxoon bu baaxoon ñun du ñu ñëw nekk candidat. Mm-hmm. waaw gis nañu ne mën na baax mais da nga di nekk candidat. mën na mën na baax waaye day bu am na yu des bu nekkee sax baax na am na yoo xam ne secteur yu bari mm-hmm. gis nañ ne daal sooxe te am nañu am nañu yoon yoo xam ne buñ ci jaaree waa jas askanu jas ñu gis ne ah jeune boobu nekkoon candidat yi am na yoon yoo xam ne dina ca jaar ba développé.

maa ci ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur moy buntu bi lepp luy dugg Sénégal ci ministère bobu lay jar muy investissement muy lu mu mënti doon ñu dañuy toog sax di gis ay affaires yoo xam ne dañuy ñëw di jàll di dem ci yeneen dëkk yi ñu ñu ñu yéene ko suñu dëkk du du du intérêt bu ma ñëwaatee ci intérêt personnel mënul nekk intérêt personnel parce que wax naa ko sànq sama liggéey bii ma dugg nii may na ma tey ma jël sama bopp jël en charge sama njaboot. ak na ma dëkk fu mu neex waaye nag man dama ñëw pour soxaliku Koursaafi ñëpp gis ci seen bopp développement bi mu am. loolu moo tax a jóg développement de Koursaafi moo tax a jóg. développement tey da ngay toog liggéey bi jas ci monde bi partout. mais boo ñëwee jas da ngay découragé. waaw man sax ci sama programme am naa lu ñu naan programme attractivité jas mooy mhm. damay valoriser espace communal de jas maanaam fii dama fi bëgg a def ay li ñu naan marché hebdomadaire ay dem ba ay foire boo xam ne foire foire saafeen lay doon du saafeen parce que saafeen rek ñoo ko moom mais ay malien ay ñeneen mën nañu ñëw ci at ci jas képp koo xam ne mën na jóge Thiès naan damay dem jas kii jóge Mbour ne damay dem jas jas mel ni dëkk yi gars yi di si ñëw te attractivité boobu dina tax ba développement am ndaw yi liggéey femmes yi liggéey te day tax ba suñu koom-koom sukkali bu ñu defee loolu dëkk bi day gën a ne ñëpp am liggéey booloo nekk benn voilà léegi tey ñu ngi Bandia Ismaïla Seck natif de Bandia Bandia tey bu ma gisee Bandia am na problème ci secteur yi yëpp Ismaïla Seck nee neen jeunesse bi moo ko moom ñenn ñeneen jeunesse bi mu moom jeunesse bi léegi Ismaïla Seck loolu noonu loo ci xalaat. waaw man de jeunesse bi euh, damay wax ne kenn gënuma ci yéen. Mm-hmm. ndax non seulement ci benn wàll gi man jeune laa xëy na maa gën ndaw ci candidat yi loolu sax firnde la. Mm-hmm. te deuxième chose bi mooy jeunes yi nga xam ne ñoo jóg ne yow lañ tànn te li koy firnde mooy euh, suñu suñu suñu signature gars yi dañuy def travail de casse ay deux mois ñun ñu ko def ci deux jours deux jours benn équipe boo xam ne ci dëkk yépp gars yi jël seen carte d'identité taxaw photocopier ko du ñu xaar Habib maa ngi koy remercier de passage gars yi équipe bi yépp ñu taal seen oto dem jëli carte d'identité yi dem légaliser ko ñépp jàpp ci affaire bi ba travail bi aboutir ba tey ñu bokk ci kii bi kon jeunesse boobu yaakaar naa li ñu mën a lijjanti ci deux jours taxaw na ñu mën mën a wax ne ñun ñoo ko ñoo ko ñoo ko moom ñun la tey tey biir Bandia ana ban projet nga liggéey fii nii ba man suba su ma ñëwee eh, dañ may naan lii nii Ismaïla Sène moo ko fi liggéey donc dañuy taxaw jox ko suñu carte waaw man comme ni ma la ko waxee rek man dama nekk ndaw boo xam ne mosuma jóg ci affaire Bandia te Bandia nag liggéey du invest du question de xaalis wala kii mais lépp lu bañ di def ci wàllu bu ne man dama ci taxaw kii ci la preuve mooy sama kër a ngi nii bañ la nekk man lépp lu ma am fii la ci wàllum association ci wàllum association des élèves et étudiants man j'ai été le président aujourd'hui man may président d'honneur ASC e bu Bandia fépp fu ñuy dem ñun ñooy àndandoo nekkandoo defandoo lépp ba tax na man yaakaar naa ne kenn mënul taxaw ne Ismaïla moo deful lii fii wala moo def lii ci lu ñaaw moo tax nag tey candidature bi mu ñëwee dañ ko rafetlu ànd taxaw pour jàppale. mais je pense que c'est pas les jeunes seulement il a wax naa ko sànq xam nga GIE femme man damay woo ñëpp jeunes yi la femmes yi ak pa sama papa yi ak ñëpp mais jeune bi jeunes yi bu ñuy wax jeune mooy mooy mooy base bi ndax ñoom ñoo ñoo ñoo ñëw ne ah dañu bëgg nga porter suñu candidature bii léegi su ko defee jeunes yooyu. moom dama leen di woo mais femmes yi surtout sama yaay jigéen ñi nga xam ne ñoom sonn nañu lool am nañu projet pour ñoom boo xam ne ñoom buñ ko tegee incha allah ku ne dina ci gis boppam ci seen GIE mais personnellement ku ne dina mën a nga toog ba heure bi posé commencé def ay projet pour les jeunes et les femmes mënoo waaw maa ngi ci doon liggéey euh, man dama doon bëgg def. Euh, li ñu naan projet boo xam ne de développement local commencé woon naa ko bind bu yàgg et doon xaar sax li may defee sama mouvement mais wax naa ko sànq ci point de presse bi yàlla suñu borom moo dogal loolu ñëw ne ah Ismaïla yow de sa yoon na nga nii yow da nga war a participer activement léegi nag la ma doon bind la ma doon xalaat mu ñëw rek ne ah wéyal la moo tax man ma taxaw tey ne nag li ma bindoon ak li ma préparé woon yoon la léegi ñu teg ko sur la table. won askan bi ne ñun taxaw nañu pour développement. tey Bada mu nekk entre usine ak carrière en plus ñu jànkoonte ay problème waaw loolu lañu naan responsabilité sociétale des entreprises tey euh, usine yooyu ñun prévoir nañ suñu programme benn cellule boo xam ne wala benn comité boo xam ne mooy nekk en charge benn genre euh, synergie ñun ak ñoom recenser leen bind leen ay lettres seet si leen waxtaan ak ñoom ndax. seeni seeni devoir la ñu taxaw ci soxla askan bi surtout euh, emploi des jeunes tey man dama damay dama jàpp ne tey waa Bandia ak waa dëkk Saafeen waruñu nekk ay journalier ci kii war nañu mën a toog ak gars yi waxtaan ak ñoom ba affaire yi conditions yi ñu ko améliorer gars yi gis ci seen bopp ci wàllum responsabilité sociale non mais incha allah parce que man loolu mooy ci laay dox te xamna naa ne man borom yi borom yi. j'espère que aussi jeunesse su jeunesse su Bandiara ñàkk la. non je pense pas parce que wane nañ ko wane nañ né naxuñu ma te incha allahu rabi bañ la incha allahu rabi dinañ ko gagner au soir du 23 janvier gagné feneen inshallah allah. incha allah yàlla baax na da bëggoon naa xam lan moy sa relation ak yenen politiciens yi nekk fii au niveau de la commune de Diass. waaw relation bu rafet. bu rafet sax ndax Cheikh Tidiane Diouf yag na ko xam ñoo nekkoon euh, ñoo nekkoon université. xaal yi xaal yi xam naa ko ñoo nekkoon université am na keneen ki Souleymane Faye bon xaw ma ko bu baax Mamadou Ndione dégg naa ko dama koy gis yenn saa yi ci ci ay rencontre ak yooyu mais amuñu occasion xamante mais xam naa ne daal ñëpp jox naa leen respect et puis maa ngi leen di encourager parce que ñoom amaana am nañu programme boo xam ne xëy na dañu bëgg kii mais man wóor na ma ne tey tey man prévoir naa loo xam ne mooy. bu ma gañee ñoom ñëpp dama leen di woo képp koo xam ne am na programme bu innovant lu leer dama leen di woo ñu ñëw wala dama leen di woo ñu ñëw bu ñu ñëwee képp koo xam ne am na programme gis naa ne lii day doxal dëkk bi mhm. ñu toog ñun ñooñu parce que nag wax dëgg yàlla ñoo bokk lamb ji te kenn rek mooy gañee mhm. kooku bu gañee te yàlla na ko Ismaïla Sène insha allahu rabbi su ko defee ma woo leen ñu ñëw ñu. wala 23 le 24 ñu dem ndekkee jeex na mairie ba jeex na tàkk. léegi an lan ngay dénk jeunesse su Bandia tey. boo mënee wax en en séeréer saa fekk. Eh, ay jeunesse yi Bandia euh, ne wax dëgg yàlla baxayatan winho vision yi boo xun boo boo gagné boo gagné élection ci su ko defee la boo kat euh, yes installé wu ndaam développé Kourouza. vrai. waaw eh, boo. dañ koy ba No, ma den kay ba inem ba engagé ou ba inem ba inem ga. Est-ce que est-ce que c'est seulement jeune su badja? Non, jeune su yeb sa di yow xam nga foso foso bi badja. Bi badja na course afi jeune. Jeune si course afi jeune bo beru ba. Ba hay sin ko fosi. Parce que dinga dinga mëna déplacer dug deuk par deuk. Wa lolu inshallah rabbi bo hay déplacer ke kon par kon deuk par deuk. Pour gagner confiance gaay. Tégalé. Voilà. Wow, programme bi boo tegi ba après voilà. yaakaar un programme c'est sûr. non non non c'est un programme sûr. un programme boo xam ne liggéey di ci di baax di baax a baax yaakaar naa ne daal dina dina dina dina suqali dëkk bi daal. le mot de la fin pour ñu mën a teg. di leen remercier di remercier Kipeski voilà waa Kipeski TV ndax wax dëgg yàlla ku la defal interview di remercier sama sœur Daba ah vraiment qui déplacement bi ñëw def live bi. maa leen ciy sant di gërëm di leen gërëm di woo ñëpp nag ci vision pour nous gagner au soir du 23 janvier 2022. voilà merci beaucoup Mme ngi lay pour bu baax. le temps de nous accorder. voilà c'était l'émission avec euh, le nouveau candidat pour la commune de Diass Ismaël Sène je vous donne rendez-vous prochainement merci beaucoup.